saal yu milliards yooyu dafa mel dafay diig ci ndox bi àndaaleeg euh, yaakaaru nit yi ndax at bu nekk dafay gën a yées. xam nga li ci gën a doy waar moo di du ñu def jamais évaluation ci li nga xamante ne moom lañ dépensé. waaw parce que bi inondation yi takar naa see at ñaari at yi ci ginnaaw. Mhm. président Macky Sall dafa waxoon. Serigne Mbaye Thiam nañ ko defal benn audit vraiment ci dépenses yi nga xam ne yëpp moom lañ dugal ci assainissement bi assainissement bi ak inondation yi mais loolu ñun ba léegi gisuñu benn kayit bu ci génn parce que président bi jàppoon na ne dugal na ci milliards yu dul jeex mais finalement amul ñu résultat boobu loolu nag dafa bari Sénégal gis nga même mbay mi ça a été encore la même chose dañuy dugal xaalis bu dul jeex te du ñu xam finalement xaalis bi fan lay dugg parce que ñi nga xam ñoo war a nekk les principaux bénéficiaires xaalis bi du egsi ci ñoom. bu ñu waxee ne dugal nañ tant de milliards mais est-ce que population bi ñoom yëg nañ. ci équipement yi nga xam moom lañ def foofu que ne xaalis bi egsi na ci ñoom déedéet egsiwul. moo tax il faut ñu def benn audit vraiment ci xaalis bi aussi fan la dugg est-ce que vraiment dépense yi nga xamante moom lañ ci prévoir ndax def nañ ko wala defuñu ko parce que chaque fois on investit des milliards.

déjà dégg naa rek sax waa Kër Masar yi ñoo xam ñoom dañu ne soxlaatuñu ay moto pompe soxlaatuñu leen saa à dire ren bu fi kenn indi ay moto pompe parce que loolu c'est pour une solution conjoncturelle mais il faut des solutions structurelles solution structurelle mooy wax nañu de langage de vérité te ñu wax ñu aussi xaalis bi réellement ndax dugal nañ ko ci mbënn mi wala ndax dugaluñ ko ci. mu ngoog Serigne Saliou ñu wax ci coowal trafic visa yi ñu jël ay tuuma teg ko ci ndoddu euh, Simon Kouka ak kilifa ñoom euh, dinañu xaaraat ngir xam fan la yoon mujj euh, dogal. bu mu mujj jël ci ñoom ndax seen procès dañu ko dàkkaat ba juróom-ñaareelu fan bu weerub juillet euh, suñu reporter sikk waxtaan ak kenn ci seen i avocat mu di maître Rougay Chiba ñu déglu compte rendu kon bu Abdoul Aziz Sow Dabax teguñu fi seenu tànk lu ko waral moo di jotuñu këyit buy wane rek ni dañu leen a soxla ci procès bi loolee waral kon ñu dàkk ko procès bi ñeel trafic présumé visa jàppaat nañu ko juróom-ñaari fan ci weeru juillet ngir retour de citation ak plaidoirie yi maanaam ñi le kon ñu jébbal leen këyit boobee ba ñu mun a ñëw laaj ak tontu yi mun a door buñ sukkandikoo ci maître Khoureychi Ba doon seenub avocat ñoom ñaari activistes yi ñu teg seenum ndodd lu bëri ci ay tuuma bokk na ci escroquerie mu dib luubal waaye itam association de malfaiteurs secteur njuuj njaaj si yenn ci ay kayit ak i trafic de migrants ñoom ñaar ñi di Simon ak kilifa lu jëm ci kilifa mbiram mu ngi door ci weeru juillet ab vidéo fësën lool ci réseaux sociaux yi ñu wanoon ko sax mu ci nangu ab xaalis ngir am ñu muy lijjantil visa ñu mën a dem Europe Simon mbiram soriwul dara lu ni mel mu ngi door ci weeru septembre moom mile nangu woon jox passeport français wam keneen ngir mu jaare ci wutali tugal ci fàttali ñaar ñile bokk ci mouvement yanamar yoon dalee na may bàyyib ndéganiku ci walu politique ñu dellu si ci investiture yu euh, législative yu war a am fanweeri fan ak benn bu weerub euh, juillet parti socialiste ak euh, AFP ñoom dañoo mer bu futu jëmale ko ci ni ñu leen beddee ci liste nationale ak départementale bi li ñu nemmeeku moo di téeméer boo jël ci liste bi juróom-ñeent fukki ñu nekk ci APR la ni ki jamono ji ñu nemmeeku ne ñenn ci ñoom ñooy alliés yi ñu ngi tàmbali di génn di fësal seen mer ak itam di ñaawlu akimo bi nga xam xamante ne APR dañ ko def ci Benno Bokk Yaakaar mu mel ni euh, euh, ndorteelu njeexitalu ànd bu yàgg lañu ñu ond ci ak jàngat bu ndey di met ndaw président Macky Sall ndax dafa nekk di taqalikoo ndànk-ndànk ak ay alliés ba mu jëlee nguur gi ba léegi di ab laaj bu ñu samp bu ñu gisee ni ñu doxalee ci investiture yi soxal lu jëm ci élection législative yi ñu jàpp ci le 31 juillet bi di ñëw ay socialistes yu nekk ci biir région ci Sénégal dañoo mer ba futtu yëkkati seen kàddu fële ca Diourbel naka Louga dañoo ñaawlu rek ñeent fukkeelu place ba ñu jox maam Bounama bi tey laaj nag ay explication seen njiit Aminata Mbengue Ndiaye moom secrétaire général bu parti socialiste sax dañu koo zappé ci liste benn socialiste ngir séddale ay poste cëral bu baax baax ay alliéem ndax dafa tàmbalee jeex ci président Macky mi nga xam ne bi dafa cëral bu baax baax ñu bokk ci alliance pour la république di waa APR ndax bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar wax nañu ni téeméer boo jël juróom-ñeent fukki yow ak benn lañu am te ñenn si ñoom sax ca position position leen yóbbu dafa sori lool beneen parti di AFP ñoom it ñaari investir rek la ñu am benn bi ca département bu Pikine di Pape Sagna mbay keneen kii di docteur Malick Diop ca liste nationale bi AFP parti socialiste di ay formation politique yu gunge président Macky Sall bi mu nekkee njiiti réew ba tey alliance bi nag traversé na ay jafe-jafe yu bari waaye bii yoon ndax dina mucc ci coowal investiture yi laata ñuy egg 2024. jërëjëf Ndeye Dimet ñu dem ci seen rubrique seen asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum groupe D-Média maa ngi leen di ziar di nag seen liggéey bu ngeen def ci réew mi nekk ci marché Tambacounda bi dafa ñaaw daanaka chaque année daal ñu ñëw yàq marché bi tas ko dem seen yoon démb démb démb démb rek lañ ñëw démb rek lañ ñëw ah, dégg nga maam tas tas suñu place yëpp maanaam ñu nekkoon ci mbedd mi yëpp lañ lañ génne yàq seen bagage yi dem dem dem seen ba léegi nii nii waxuñ ba tey lan moo tax def ko waxoon nañ dañu defa tali mais ba léegi nii gisaguñ la ñu ne lu ñu sàkk mooy état bi ni ñoo jàppale ñu bàyyi ñu liggéey ñu Sénégal lañ dëkk sàccuñ fenuñ tuxuñ defuñ daal dangaa ñëw pour liggéey daal suñu doole nañu bàyyi ñu liggéey boo gisee ñi agresseurs yi bëri fi yëpp loolu kese la. salaamaaleykum waa Deme Dia ñu ngi leen di ziar seen wax sunu xalaat di ñaan président mu am yëkkati ko tuuti xam ni moo jiite Sénégal yëpp ñu ngay ñaan élection yi moo doxal si dëkk ak yoon organisé ko xam ni lim fi def moo ëpp li ko dese am woy war moo gën a war depuis ministre bi fi teg ñu ngi ko fi tegee ba léegi ay problème rek ak parparloo si la ne kon nag am na loo xam ni euh, jekkul jaarul rafetul loolu ay caaxaan nan nan bàyyi caaxaan yi ñuy def dañuy dugal si réew mi ay jafe-jafe Abdoulaye Wade bi fi nekkee di forcer nit ñi